oh là là gars yi ndeysaan papa yi moo mujjee génn àdduna d'après RFM ñoo génnoon di leeral mbir mi en tout cas équipe nationale Sénégal tañeer bi am na mauvaise nouvelle tey jii. muy décès boobu nga xam ne jóom na ci papa yi kooku di Cheikhou Kouyaté ngeen xamee ko noonu sunu ancien capitaine équipe nationale Sénégal jamono ji doon leader ci équipe bi doon fa cadre vraiment jàmbaar boo xam ne nii booy yëpp da leen ci jàmm ak salaam di leen taxaw dama doon sax dama def spéciale pour moom ci importance bi mu am ci tanière bi équipe nationale Sénégal ba yàlla lim def nii mais incha allah yàlla baax na yàlla na yàlla yërëm waajuram bu góor boobee xaare ko aljana te yeexee ñun ñëpp vraiment c'est c'est c'est triste c'est triste c'est triste yàlla moom li gën lay def moom moom mooy moom moom mooy mooy mooy joxe bakken te mooy jëlaat te moo ko fi indi woon yóbbuwaat na ko du ñun duñ def lu dul ñaanal ko ku julli na ko ñaanal ak bu dul dara doom ji représenté Sénégal fu ne lu ne defal na ko Sénégal kon nag amuñu leneen luñ ko fay amul leneen luñ ko defee lu dul di ñaanal waajuram jooje yàlla yërëm ko xaaree ko aljana ak bépp <coughs> <coughs> yërëm ko xaaree ko aljana te yéexeñu bon courage Cheikh Kouyaté bon courage na ñëpp ñaanal ko ci commentaire yi na ñëpp ñaanal ko ci commentaire yi yàlla yërëm ko xare ko aljana bon courage bon courage Cheikh Kouyaté c'est vraiment triste mais c'est normal yàlla moom lu mu dogal rek kenn mënu ci dara ko quoi yàlla baax na jàmm ci yow mon frère jàmm ci yow jàmm ci yow vraiment c'est triste mais jàmm